soxna jaara ji aduna mënu ko xawlintu wal jinnu bin malakin mënu ko soxna jaara ji aduna mënu ko xawlintu wal jinnu bin malakin mënu ko soxna jaara ji aduna mënu ko xawlintu wal jinnu bin malakin mënu ko aw ma jommalul boppam soxna jaara moo deebi dey soxna jaara fekkee ci àdduna manu baaxaw bin diwal jinna aw bin malikin manu baaxaw baba yi jël di di fee ñaata yaaram wa def wa wulaw soxna jaara buggee yoon kon tabarak nga te foo ah. nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke la jox barke waayu nga daway nga te forox nga te foo nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke waayu nga daway nga te forox nga te foo nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke foo demoon du xam juune dunu wan kiin woolu doj la doj xajul cim nen soxna jaara la nu woolu

xajul ci nen maam soxna jaara lanu waalo kañ la dog xajul ci nen maam soxna jaara lanu waalo kañ la dog xajul ci nen maam soxna jaara lanu waalo kañ la dog xajul ci nen maam soxna jaara lanu waalo ku ne man du xam juune du nu war kiinu waalo ak xaajul ci nen soxna jaara la nu woolu baabu daban soxan cuune duna wan kii ñu wool daban la dañu xaajul ci nen soxna jaara la nu woolu bu dina julli te jaapul bu dina julli te wirdul doora xëy sangam tuubal dal di war këram buubal bu dina julli te jaapul bu dina julli te wirdul doora xëy sangam tuubal dal di war këram buubal na gilli te wirdul ah. doora xëy sangam tuubal dal di war këram jaara musula julli te jaabul musula julli te wirdul doora xëy sangam tuubal dal di war këram soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram lu ñu ay jëkkandoo fi ci njëkk ci soxna Anta Njaay ma soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta mamba waral seeru ji gaawaandi daki Bambay jaamam jam sayir la jambaatin moo waral moo de baxaar la jàmbaar gi lëf moo waral moo dem xaar yaa waral sëriñ gaawaa la jàmbaatin la moo waral moo baatin la moo waral moo def وسلم Tuuba ko jafal ba muy leer Tuuba ko jafal ba muy leer man Sawru ah. Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer man Sawru Faal Sëriñ Tuuba ko jafal Ba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ko jaabal ba muy leer. Mam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba. Tuubaa ko jaafal ba muy leer bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am bamba am la jëye may la am moo jaara yéene jaara bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am bamba am la jëf la muy jëf yéene waral kërug buuram yëfarit la muy jëf yéene waral kërug dooram ab jullit la muy jëf yéene waral kërug buuram yëfarit la muy jëf yéene te boole koog yéene looloo muy ngir ma maam jaara jëf te boole koog yéene moo tax nit jullit war nga jëf te boole koog yéene looloo mooy ngir ma maam jaara jëf te boole koog yéene moo tax nit jullit war na jëf te boole koog yéene looloo mooy mbir ma jaara jëf te boole koog yéene moo tax nit jullit war na jëf te boole tey jëf te boole koog yéene ma dee leen jëf te boole koog yéene moo tax jullit war na jëf te boole koog yéene waxoon mosul ween ku gudde mu dem di war na arab di war taana te taw sara ak leer ak waxoon mosul ween ku gudde xeen di war na arab di war taana te taw sara ak leer ak waxoon mosul ween ku gudde mu dem di war na arab di war taana te taw sara ak leer ak waxoon mosul ween mu koy ngëneel ndaw ngoolal mu teel a sama mu mel ngëneel ndaw ngoolal mu teel a sama laaj ko ngëneel ndaw ngoolal mu teel a kéemaan mu warandu koy ngëneel ndaw ngóolol mu teel a sàmbaaloon ngëneel a doonalaat ngëneel mu mel ne gënaat mu nangu koy ngëneel ndaw ngóolol mu teel a sàmbaaloon jàpp lu baax lu baax di fanaane xar baax boo doon keneen di wax ba mu dem dal di wàññi sax bañ ngëneel ya ca feeñul jafe nga ci jaar ci wàllu ay jabar ak tarba joojo doon sama waar danaa ko doon demal ba du ma jaar yaa doy waar ma dox di waxtaani musulul jóg di seetaani musuloo wax bañetaani moo toroxal seytaani musuloo dox di waxtaani musuloo jóg di seetaani walwal déggate fi ko gantu tey bañawal moo ko liggéey nambo naa walwal déggate fi kenn ko gantu tey jéeg mambolaan mu naan walwal déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. soxna Jaara moo sant jéeg mambolaan mu naan walwal déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggatee fi kenn kumar maa ko gantu déggate fi kenn ku mar mbaa ko bantu day bañalal déggate fi kenn ku mar mbaa ko bantu day bañalal waay wal mi dem na fu ne ngeen ji jéema day gandile ñi nangoog ni gan tuddute bamba fépp lay darale waay wal mi dem na fu ne ngeen ji jéema day gandile ñi nangoog ni gan tuddute bamba fépp lay darale ku ne ngeen ji ceebo tey kenn lee ñi nangoo ñi gantu du tee bamba fépp lay darale waaye war ne kenn na ku ne ngeen ji ceebo tey kenn lee ñi nangoo ñi gantu du te bamba ñëpp lay dimbali. waaye war na ne gan gi jaama day gënd de ñi nangoo ñi gan gi de lay dimbali wala war ni dem na fu ne gan ñi nangoo ñi sant du de bamba ñëpp lay dimbali ku yabu bañ bakk baa ngi kenn terewul ñun ñi gëm dañuy texi ngi ngan ñi ceeba faw mu wal yaa ngi kenn terewul nun ñu gëm dañuy texe ngir ngeen ji ceeba faw mu wal ku yebu tef ku yebu wal mbàkk yaa ngi kenn terewul nun ñu gëm dañuy texe ngeen ji ceeba faw mu wal ñu ko gëm dañuy texe ngir ngeen ji ceeba faw mu wal ñu ko gëm dañuy texe ngeen ji ceeba faw mu wal ñu ko gëm dañuy texe ngir ngeen ji ceeba gëm texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. nu ko gëm deni texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. nu ko gëm deni texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. nu ko gëm deni texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. nu ko gëm deni texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. nu ko gëm deni texe ngir ngeen ji ceeba faw mu war. ñi ko texe ngeen ngeen texe ngeen ngi cee faw mu war. xamal cee ba dem na bu ne. teete daay di takk ba tey. cey gi la wax dal na yaram déglu leen a suufi ngi tey. ku yebu la ku yebu la takk baa di tente la woon na nga gëm dañuy mu war.